asalaamaaleykum man soxna Mbodia mbaay maa ñëwaat ak yéen di leen nuyu nag fii ci Balaye TV xale yi xale yi xale yi tarkaal la xale yi xarañ yooyu macha allah Balaye TV nag ñi ngi toj dëkk bi nag ñu ngi def buzz tarkaal la mën seen liggéey loolu te xam ni ñu koy defee man soxna Mbodia Mbaye nag maa ñëw di wax ak yéen ndax temps yi tamit wax ji dafa xaw a bari lool ci samay nopp te coow li coow li kër yi la xam nga nee naa leen sëy mënta génn néeg togg ak yàq ak lekk ak ci sëy la. mais kawlal kawlal mënta génn ci sëy parce que moo ñu fi andi kon bu amee ampé bu amee tardement rek kër gi day jaxasoo te kër gu jaxasoo googu nag moom la jeeg ju bari di di jooy waaw parce que jigéen joo gis nag li ko andi ci biir néegu sëy mooy néeg man day mbaay néeg moom bëgguma mu ko koy génn ci biir néegu sëy ndax moo yor sëy bi rek kee xoolal kenn du faj bopp di bàyyi tànk bopp buy métti bopp la ñuy faj tànk yi métti tànk la ñuy faj waaye sa bopp mëntu mënu di mitti ngay faji tànk kañ ngay wér waaw parce que nag biir néegi dafa am jàngoro yu ci nekk jigéen ñi di ko jooy ñëw ak man ba fii ci banlieue TV fii la lépp yi leere maa leen koy leere ba mu leer li waral loolu xam nga jamono yu ñu toll stress dafa bari stress yaa ngi rey góor ñi surtout góor ñoo xamante nii lépp yow la war nekk sa digg digg bopp bi te amoo jigéen ju la defal waxuma ma gaaw a yegg mais jug sax ba yegg nga dul mën ndax lu tax góor bu amee problème du yëg boppam bu stressé du yëg boppam bu xiifee du yëg boppam bu bu amee naqar du yëg boppam kon góor il faut que muy tranquille parce que sirit sirit la rek sirit il faut nga tranquille soo ko mën a xam lan mooy lii nga jëm nii lan la parce que boo tranquille stress bi dañ xalaatoo dépense xalaatoo lenn tarkal la wala nga ñëw am problème yooyu fekk fi jigéen joo xam ne day ñëw nga mu dalal la dalal la ba stress bépp jeex dina la cuqutaan dina sangoog yow dina la jox nga lekk ba suur won la ni problème bi du dara xoolal loo bëgg ci néeg bi danga koy am mais na góor ñu bari dañoo ami problème te dañoo ñëw jigéen ju leen dalal comprendre nga jigéen la war a dalal boo dikkee mu dàq laa nelaw fuuf du la jox nga lekk li jëntuwul say problème boole ci nag daan lu xoolu nuyee nag dangaa dikkaleeti waaye mën nga fiy fekk moo yoon li nga bëgg ci néeg ba foo koy amee te góor bu xiifee mënul dara man bàyyi damaa góor gu xiif du mun laa amal njariñ kon nag yéen jigéen ñi jooy loolu li seeni borom kër dañuy gaaw a yëg seen bopp dee leen xool sëb la ca bën la ko bënn nga ca biir dafa am lu bari lu undu loolu dee leen ko jàng di ko xool ba pare nag gis nga góor bu la nobee dëgg it day gaaw ak boppam bu la bëggee dëgg bu lay jub boo xefee rek mu yëg boppam beneen bi ci des it bu tukkee ba namm la lool bu la jubee yëg boppam kon gaaw a yëg boppam sa bopp ci ci góor du yaafuus mais li koy waral dafa bari comprendre nga léegi nag li koy waral jigéen ñi dañ ko war a xam ba di ko préparer ba di ko maîtriser ndax néeg mënoo cee nekk ba toll benn âge bi te mënoo cee maîtriser dara jigéen ñu bari tamit ñu ngi nelaw ci côté boobu te ngeen di xool bu ngeen nekkee góor ñi ni ngeen di préparer ak ñoom bu ngeen nekkee góor parce que góor tamit carrément dina am feebar boo xamante ni day gaaw a yëg boppam kooku mooy góoru ginaar góoru ginaar day gaaw a yëg boppam bu yéegee fa muy yéeg fa muy wàcce benn lay doom du la teree am doom nag mais mënoo satisfaire kenn loolu bind la ci góor su nekkee moom nag yow muy jabaram. yaay xam na ngay dunde ak moom parce que pour man góor goo nekkal rek ren ba at at ba at ba deesi rek war ngaa mën a xool kii lan la mën ak lan la tële ku ne sa kàttani borom kër fa mu yam nga xool noo koy maîtriser ba dépassé foofu kooku yaa koy liggéey ci kawlaal bi may ma ma ñëw <laughs> waaw xam nga lu tax xoolal gis nga jigéen dafa am jigéen ñoo xam ne xam nga doon jigéen ak saf jigéen dafa bokkul waaw jigéen da ngay doon jigéen mais doo saf jigéen jigéen nga doon jigéen bu pare saf jigéen nga xamante ni góor gu la ni jàkk dina xam ni jigéen la jàkkaaroo loolu tam def ci g bu baax am na jigéen ñoo xam mën nañoo tëdd ak góor sant ak quatre dimanche ci kaw lal bi tëdd gu góor ki du sant dara parce que dara lu yee góor ne wut ci yow dee leen ko jéem a jàngal seen bopp am góor ñoo xam ne nag carrément yow da nga leen di wax ak ñoom sax ñu ne ca kaw xam nga senegal dafa naqaree waxee yàq bi nga war a toj dëggantaan sa doo ko mën a pour nit ñi comprendre parce que wax ji bu dajee ba xóot ba xóot ñu dafa ëpp moo tax lu ci bari damay raay mbelle nii rek ci kaw bu ngeen comprendre mais góor li ko mën a delloo si pour muy satisfaire néeg dafa yomb te dafa bari te jigéen ñu bari xamuñu ko moo waral nag ñuy basé wu ci dem di jël utiliser ay safal ak yu bare bari pour di ko jox góor ñi ñii di jox seen i jëkkër ay doses yoo xam ne dañ koy naan doole ji dem ba ëpp parce que la ni nga bëgg seen borom kër satisfaire leen gis nga góor bu tranquille boo ko doon jox lu ñu buddee ci asamaan sax du tax mu yëg boppam. <laughs> sama numéro mi ngi noonu 78 6 631 31 40 78 631 31 40 ci numéro boobu boo ci wootee di nga jokkoo ak soxna Mbodia Mbaye ñu daal di waxtaan ak noo ko bëggee ci numéro xelal ma boobu incha allah rabbi kaw boo ànd situation boo ànd rek dinañ ci mën a jokkoo waxtaan ci bu baax